waxi ojo bi muy bëreeg Modou ci Elton ma ñëw jël si fii Elton Elton wax lu ko naqari lool lool seen diggante xam nga mu mel ni yaag Elton école de Balla Gaye yow lañ fi xamoon Elton les deux Balla ak Elton ma laaj la ci Kaolack nga ne loolu yégoo ko te Elton waaw affaire ba metti woon ko trop loolu tey lan lañ ci Balla mën a te gis nga nit mooy li ma lépp lu waay di wax na ko seetaat man maa woo Elton fekk ñuy denc papaam di dem Touba xaw ma ñàmbur ma ne ko boo ñëwee rek nga woo ma ma xam ñëw nga ma ñëw jaale la yàlla dogal mu ñëw wow ma man tam ma comprendre ko xaw ma woon kër gi fan la mais seen kër gi mu yaroo ma xamee ko fa man xam naa fa mais xaw ma papaam fu mu gaañoo. dem nga ci kër gi mu yaroo. dem ma fa. lu tax loolu. waaw déggoo li ma la wax. papam gaañoo fi nekku fii. Ah, nekkul woon non nekkul fi bokk. géej waay fii quoi fi ma xam man. moo woo Moussa Ndour mu ngi man li muy wax rek mun naa ko waxaat jaale naa ko ci téléphone jaale naa ko ci wax mais dama ko wax ne bu paa bi ñëwee bu ñu dencee paa ba pare bu ñëwee ma jaale ko. est-ce que tamit nga demoon fekkee denc ba gënul rafet. waaw mais daf maa bett man lépp lu may wax mun naa ko wax daf maa bett damaa yeewu rek comme par exemple ñu tët ba yeewu ñu ne denc nañ ko ñu wax ma ko monsieur Ndour moo ma ko wax ñëw kër ga ma ne ko nañ fa dem. billahi wallahi wa taala ñu taal sama ma taal sama oto di ànd ak moom pour dem. ñu woo ko téléphone. ñu ne ñoo ngi koy denc ji mu ngi dem Touba xaw ci seen dëkk paapa ji di ko denc ma man jël naa sama oto dem ko daal ànd ak Moussa Ndour kon loolu nekkul loo xam ne lu may laam-laam te man gaañule naa fi Elton moom woowu ma sax wala nangam sànga mais damay jàpp nit ku nekk rek bu la sa jot may dem nga def ko man gaañule naa fi ay mag ay ay tante Elton tegu fa tànkam est-ce mu ngeen dégg ma kaas ko. est loolu moo war a am seen diggante en tant que élève nekk ci biir école bi. baa Babacar Lamine. yéen ñaar sax laa wax gis nga liggéey dañ koy bokk ci liggéey bërëbu liggéeykaay bi la ñuy daje mais jàmm la ñuy sekk mais nekkul vie privée nit ngay bëgg a dugg naan ay nit ñëwuluma nit demuluma nit nangam loolu ça fait deuxième nit boo koy jàpp danga koy jàpp te yàlla tax pour man man noonu laa leen jàppee dama leen jàpp te yàlla tax xooluma ci ñoom loo xam lu ñu def ak lu ñu dul def mais jour comme par exemple micro dañ nga tiim nga naan diw nangam loolu taxul nit mel noonu mais nit nag aussi tamit nit la mun a doon moom xelam moo tollu foofu moo tax mun a wax loolu. lan la bëgg a wax waaw. waaw. non du ma ci wax dara xëy na peut-être lees manque na jot amul jot moo tax ñëwul man noonu laa ko mën a jàppee parce que tamit wax dëgg yàlla ñëw naa ci école bi gisuma ko ñëw naa ci école bi tamit fekkuma ko fi fekk ma fi lees fekkuma fi Elton wax dëgg yàlla ñi ma fi fekk nag mooy suma booy yi daan ànd ak ñoom di entraîner. wax dëgg yàlla aussi tamit ñu taxaw ma jàppale ma wan ne ma aussi tamit ñun ñu ngi sa kanam ñu ngi sa ginnaaw waaw mais fekk ne fi nag xaw ma nag lan moo tax ñëwul. lu tax te lijjanti woo ko tamit daal. non non am na vie yoo yëf jàmbur du ci dugg parce que tamit man duma ma ba jël avance ànd seeg su may mag ay Aziz ay baay xam nga ñu absente jël ko pour man li ci des maa ko war a moo muy contact muy physique muy ñëw loolu ñeme naa ko xaaruma ci kenn ndax tey ku am nag sa kër bàyyi nga ko yow. waaw waaw ku ci am nag sa kër bàyyi nga ko yëpp sama turóon léegi du bàyyi fenn bu gars yi di wax entraînement dama leen ku liggéey sa bopp ngay liggéeyal ku ci liggéeyul na ba sa morom raw la bu ko mere loolu mooy wax ji mais yàlla tamit mooy na nañu nangu loolu te absatu ko Alioune Sall aussi tamit noonu Talla Mbengue mi ma lay limal ak Mbaye Diop Talla Mbengue Modou Fall ñoom dañoo yàgg ci man ak Simon parce que dañ may desul keneen ak kan Malick Modou Fall Talla Meng Simon Mbaye Diop Malick Gakou Malick Gakou yi dañ ko daan dégg lu bari ci say wax. waaw Malick Gakou c'est la même chose si géej waay la dëkk. moom dafa mel da xaw am jafe-jafe wala. non non xam nga ku dem ba taxu ne waxu làmb bu ko ko kenn waxati bàyyi na euh, bàyyi na làmb xam nga tamit góor-góor la daal. te du question que man képp ku mu mus a jàppale ci làmb musuma dem sa kër naan la jàppale ma wala ma nangam au contraire yaa bëgg tur ñëw wax ak ñun. fu ñu toll di la sant di la gërëm pour nit ñi bàyyi la xel parce que làmb mbër làmb bokk ku ko jàpp mu jàpp la ku ko bàyyi mu bàyyi la kon moom su ma la dégg dafa mel ni gàkku dafa mel ni bi mu ñëw ci yow dafa doon jënd tur doonu dafa wut si woon tur waaw non xaw ma ba xam dafa wut si woon tur mais xam naa ne daal suñu mag la suñu grand la mais làmb dafa nekk loo xam ne ku ko bàyyi mu bàyyi la ku ko jàpp mu jàpp la yéen a ngi déggante ba tey waaw non pas tellement